va être libéré dans les prochains jours parce que loolu mooy indi jàmm Sénégal waaw te lépp loo xam ne day indi jàmm rek dañ ko war a dox dañ ko war a wax dañ ko war a encourager te président de la République pour loolu d'accord na ci d'accord na ci loolu. dans les prochains jours d'ici deux jours trois jours wala xam loo. mënuma la wax exactement mais daal dans les prochains jours incha allahu rabbi Ousmane Sonko ak détenu politique yëpp dinañ génn je pense que à partir de tey ak ëllëg di ngeen déglu dinañ am ay information yoo xam ne mun na wane ni kii di Macky am na volonté politique pour apaiser. li ci des nag bu fekkee ni loolu am na comme condition ñin ñi waxtaan nan la ñuy demee élection kañ la ñuy demee élection mais kooku waxtaan rek ko mun a indi leneen munu ko indi